saa su ngeen di wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si Daaru ci réew mi ak bitim réew sëñ Abdul Xaadir Njaay xalifa bi sëñ dara Asan mi ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sëñ Muntaxa ibnu Cheikh al bashir mi nga xam ne moo fi toog toogu che toogaayu Cheikhuna Ahmad al Xadim radiallahu anhu di ko ñaanal sun borom mu gën ko fee yàggal te may ko wér ba mu àggale yéenéem ak i mébétam ci diine ji ak yoon bi ak bokk bi ak réew mi ak àdduna bi yépp te ñu ànd moom di feddali it ak njébbal ak eh, kóllëre ci moom gannaaw loolu nag sëriñ Abdul Xaadir mi ngi leen di xamal ni ndigal dafee ñëwati te ndigal li jëm ci liggéeyal sëriñ bi rek ci bisam bii di jublu bisam bii ñu jublu di fukkeelu fan ak juróom ñett ci weeru safar di màggal gu mag gi ñu xam waaye it ak lu jëm ci dëkkam bi moom itam di njëmbatul garab loo xam ni sëriñ Habibu Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadel mi jiite Tuubaa ci kanam moo koy amal ci dëkk bi yaari ndigal yooyu yëpp nag di waajal màggalu 18 safar ci mbale ak setal dëkk bi niñ ko daa defee waaye ak njëmbatul garab loolu ci dolliku lépp ñu ngi koy amal ci dimaas jii di ñëw di dëppoog la 4 août 2024 sëñ Abdou Khadre nag di sàkku nañ ko daa defee rek ñu gën a laxasaayu gannaaw mbale rek la daa doon tey nag dañu cee booleel njëmbatul garab ñu war koo boolee mbale mi ñun waa ka sëñ Daaru Asan kon sëñ Abdou Khadir nee na nañ waat te gën a góorgóorlu te mbooloo mépp jóg ñu ànd bu dimaas jooju ñu bokk xëy balañ cay àgg yeneen leeral yu ci war danañ leen ko leeral fu ñuy tàmbalee maanaa ak fu ñu war a tase loolu ba dañ cay àgg dañ leen ko leeral benn bu fekkee dañ ko daa tàmbalee ci kër seex saalihu mbàkke moom na amadal xadim gi ñu ko daa tàmbalee ba àgg ëliya eh, dañ leen ko wax te jàpp nañ ni mën naa am noonu rek lay doon njëmbatul garab li sax moo tax ñuy wax loolu waaye bu dul woon njëmbat li di mbale mi rek kon dañ leen di wax ni foofu ñu ko daa tàmbalee rek lañ koy tàmbalee fi lañ ko daa tàmbalee ci miirub Seex Saliou Mbàkke bi féete gànnaar ci lañ ko daa tàmbalee di dem ba ca aliya kon nag noonu rek lay doon njëmbatul garab li day ànd ak mbale moom yi njëmbatul garab li nag xam nañ ni daa am ñu ci seen xam-xam màcc ñoom lañ koy àndal ñoo koy jëmbat waaye bu boobaa nag samp barrière yi nga xam ni moo koy aar ak ngas ma lépp bu boobaa nun la ko sëñ Habibu di def lool nun la ca yaakaar ba ñëwal fi boppam ànd ak jëwriñam sant sëñ Abdul Xaadir muy xalifa sëñ Daaru Asan buñ ca àggee lool yi mu taxawul ko ko kon nag sëñ Abdul Xaadir nee na ñaari ndigal yooyu yëpp muy mbale mi nga xam ne ah, sëriñ Cheikh Abdul Latif moo koy jiitee ci ndigalul sëñ Muntaqa waaye njëmbatul garab lii nga xam ne sëñ Habibu Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadel moo koy jiite Tuubaa ci kanam kon nag loolu lépp rek nañ xam ni ñu ngi koy tàmbali ci dimaas jii di dëppoog la 4 août 2024 kon sëñ bi nee daal ñu waajal ko bu baax a baax a baax ku yaakaar sëñ Darou Assane daal foo nekk lii na nga fexe ba bu mu jàll te taxawoo ci gasum pax moo xam ne dañ caa jëmban garab te yaar yëpp nag di yaari liggéey yooyu bu ci ne mën a doon lu yëkkati darajay ab taalibe setal xam nañ ko bu baax a baax ci yoonu murit ak eh, mag ñi waxtaane guñ daa waxtaane ah, setal muy bale nu mën a yëkkatee ab taalibe ba wax nañ ni sax ñenn ci mag ñi daanañ defar nit wala nit dikk am aajo wala mu am njàqare lu mu bëgg a tàggool dañ koy téye rek ay fan di ko baleeloo ab barab ba lam doon tiit ca lay tàggoog moom wala bu doon aajo ca la koy amee kon nag loolu lu ama am solo la waaye njëmbat garab nag moom itam rawati ci ndax xam ngeen ni bu fekkee ne da fexe ba taxawal garab goo xam ni dafay nekk di dund rawatina garab guy meññ ah lu yàgg-yàgg ku toog ca kër ga sab yool fekk la fa nga ne moo xam yaa ngi dund moo xam faatu nga nekk ci bàmmeel ku jëfandiku ca meññat ma it kasaalika naka noonu sab yool fekk la fa nga ne ku jëfandiku ca bant ya wala xob ya wala xasma wala reen ya da nga cay jariñu te kon yaakaar naa ni kenn kone bëgg na ah nekk fii ci àdduna di liggéey yàlla yàlla di def lu baax ba wuy ji sun boroom njariñ akub yool di fekk fa nga ne ci sa bàmmeel kenn ku ne bëgg na ko mag ñi daanañ fàggu loolu kon nag tey buntub loolu agsi na ci noonu ku sàggan yaa sàggan waaye kun buntub am lu baax loo xam ne dañ la bindal tuyaaba ja ci bi ngay dund boo faatoo tuyaaba ji na fekk ci sa bàmmeel kon ku bëgg loolu rek ah, njëmbët garab yaa ngoog kon sëñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñu àgg ca ak jàmm te sunu boom kattanal nu ci wér gi ak wërsëg week ak jàmm ji ba nu def ko nu raw nan ko daa defee ba sëñ Cheikh Abdou am ndam sant nu gërëm nu sëñ Habibu Mbàkke am ndam sant nu gërëm nu jërë ngeen jëf ñu ngi ñaanal ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. saa su ngeen di wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu Serigne Darou Assane Ndiaye gaaw leen gaaw ngeen abonné si Darou Ndiaye TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Darou Ndiaye TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si Darou Ndiaye